mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com tey nag ñu ñëw fii nga xam ni eh, moom mooy Cambérène eh, fekk si famille yu ki nga xam ni eh, moom mooy Cheikh Wade Cheikh Wade nag moom lañ daal di faat bakkanam fële nga xam ni moom mooy Parcelles Assainies ci manifestation yi nga xam ni amoon na semaine bi passé ñëw nañ nag fi nga xam ni moom mooy Cambérène daal di seet si ñi li nga xam ni ñoom ñooy seen waa kër Cheikh ah, sama doom la de ju am jom ñu nangoo liggéey waaye yaayam man maa ko yóbbu ah, seex la sax benn seex baa nga ne démb léegi ñu ko yóbbu hôpital waaw démb léegi ñu ko yóbbu hôpital mu sonal moom tamit waaw seex nekk jàmbar am jàmm amul caaxaan waaw du wax dugg ci dara ay looxur machine la yore da ciy kocc koccal bu ñu amee ñu ma ñaaw la par dem defar ko yóbbu leen moom ñëpp seede nañ ko fi démb waaw amul benn benn xarma yàlla kenn kenn kenn waaw man man problème musuma gis problème musuma gis mu def ma lu waaw ndax moom njëkk dafa ba mu xëyee moom dafa dem ci àjjuma ji lën à lundi bi moom dafa dem ba mu demee ba muy dem gisuma ko am na ñeen ñu ko gis man gisuma ko ba mu ñëwee laa wax ma ne ko Cheikh moom du tax laaju café tam dafa bëgg café mu ne ma Cheikh da génn ba takk daalam ba dem man ko takk daalam dem ah xanaa soriwul xanaa na ndékk par doo ko dem waaw ndekete moom toog nañ ba ay guddi gisuñu ko may yor portable di sonné di woote bu ma wootee mu décroché ndekete gaañu ne ci 11h yëguñu ko ñu toog toog ñu gis naa ko sax ni ci télé bi image yi waaye xamoo ni moom la gis naa ko ni mu tëdd waaye xamoo ni moom la ko waaye xalaatuñ ko woon ak sama bokk yëpp ku ko gis rek di nga ne xale bi lu ko ay yaam lor na yaay la yaa lor nañ ko wax ñëpp samay bokk bi lañ ko xam xamuñu ko woon ma toogee na ba ay heures du matin laa laal bi ubbeekul ma ni seex bi kon fanasi wul ma sama benn bi yow yaa yor caabi xanaa seex ñëwul mu ne ma ñëwul de ndax caabi jaa ngi nii ubbiwuma ma toog ba ay 8 heures bu ñuy waaj a defar ndékki la sama doom bu jigéen bi woo ma expliqué ko ni ko man xam dafa am lu ma jaaxal na sama bopp dafa ubbu mu ne ma la ma ne ko Cheikh dafa faransiwul kooku daal di yuuxu dëkk bi dafa naqari mu ne ma tox seeti ko bala nga dem police nga déclaré ba xam dañ ko euh, téye wala ñu ramasse leen ma ne ko su ma defaree xale ndékki ma pare naa ko xooli fa ma koy waxee rek sama benn doom bu jigéen am ko ko euh, wax ni ko ndax yow da nga am ñetti rakk yu góor kooku ni ko waaw mu ne ko am na koo xam ne moo tudd Cheikh mu ne ko waaw mu ne kooku la ñu tiré bal dama seeti ko sétéwoo ñu daal di yuuxu fi dëkk bi yëpp toj waaw dëkk bi yëpp toj ñun loolu lañ ci am yëguma ko yëguma ko waaw yëguma ko parce que moom manifestation bi sax du dara lu dul réewam moo taxoon muy xeex ñu ko gis ñëpp ci àddina ñëpp xam nañ ni seex dafa mel ni moom rek moo dee parce que am na ñeen dee parce que li ko waral dafa croix loxom yor drapeau kooku jugul pour lu bon dafa def pour réewam loolu jar woon tiire bal waaw waaw loolu rek la affaire bi demee Mm, ba ñëwee wax ma ko man nag ma ah, jox naa fi ne ba sonn parce que dafa metti sa doom nga yor ko sa kanam deful dara ñu jékki-jékki bu génn ñu ne ko xam nga dafa metti ci xol. Mm-hmm. sama benn dëkkandoo bi nee na ko miim xale ci ko ñëpp ko wax mu ne ma ku ñu yóbbu opposition ko wax nee na sunu ko xàmmee parce que moom boo gisee vidéo yi ni mu wàccee ba tiim xale bi te booba deewagul ñaar maa dem yoonam loolu naqari nit ñi xale yu góor sax yu doon dégg naa waajat lakk police ba ndax ni ni def ni nga ko def moo metti ndax nit boo ko reyee war nga caa jàpp wala nga woo ko kii waaye doo taal sa oto yoon dafa metti dafa metti aw dafa nit ki bala ngay xam sa doom mu génn àddina ndax li fi wàcc dem ci àddina ak xale góor yi fi dem démb ci àddina man xaw ma fu ñu jógee di image bi lay gis di topp kër gi ba fii parce que ñu bari dañoo fekke léegi am na ñoo xam ne ko gis ci image bi ci télé bi topp kër gi ba fii waaw loolu laa ci xam ñoo ñëpp ñëpp ñëpp xaw ma leen ñi fi ñëw ñëpp wóor na alxuraan xaw ma leen xaw ma leen dañuy ñëw rek naan ma affaire bi métti na xale yu góor affaire métti na ni ñu ko defee ak drapeau bi yoru ak jàmm ji mu doon woote ñu tiire ko ba loolu moo leen naqari waaw te moom demul dikkul demul dikkul te ma nekk bu amee bu kocc koccele ñu ah mu gisu ñu attaay sax doon ni eh do ngeen attaay ñu at attaay wala mu taxaw tuuti mu ñëw ni ma ma ma café ma may ko café wala mu toog ba yàgg muy tàngalu café man koy da ngaa bëgg café café rek nga bëgg dañu la war a defara barada tegal la waaw waaw seexam bi tam ma nga fi moom xam nga fekk ko fi bi muy dem affaire bi da koo métti ma koy jooy xam ñaari problème ma yor ko ñaari problème mu démb ci 11h hmm, jigéen la démb jigéen la démb lañ ko a hôpital 11h la ñëw tey dañ daf tey xam ne suñu loxo man yóbbuwaat ko ma nga nee nee il fok mu gis xale bu góor bi bala muy am jàmm yóbbu ko pour mu xool ko. Hmm. moom moom da doon ñaw da doon ñaw moom jotoon na maa ñëwal sax ñaari garaam sama doom bu jigéen bi nga xam ne nekku fi ñaw appel ñawal na ko doom ba mu egg ci guddi gi ba waaw moom da doon ñaw man mi na ñaari garaam yoo xam ne benn bi sa eggut doon ñaw. moom jëru woon intention intention boo koy jël day fekk yor xeer wala nga yor ngànnaay moom yoru ngànnaay yoru xeer baraatu drapeau bi ñëpp ko gis àdduna bépp ko teg seen bët ah dañ doon jàppale parce que machine la yor machine bi baax waaye day yoroon kocc koccal ma am dimbalee ma ko waaw waaw lu ma am jox ma ci loolu laa ko xam du denc dara ndax dafa jaboot papaam dafa teel a génn àdduna waaw dafa jaboot kon te kooku du denc dara hmm. waaw xale yi dañu seen manifestation xam naa dañu am leen naqar rek moo tax ñu koy def waaw waaye bi nga xam ne Cheikh moom mu jëdee moom moom mu jëdee moom manifestation di manifestation xeex parce que moom dafa yor a croix loxom kooku xeexu xeexul foofu lañ ko boome waaw moom foofu lañ ko boome waaw. Sonko ñoom ci ëllëg sa lañ fi ñëw bañ ko defee ba ci ëllëg sa lañ fi ñëw ak keneen man xawam kooku tur bi am na ko fi ñëwaat sànq waaw waaye maa fàtte turam sama rakk jën bi moo ko xam xawma ko waaw ah di leen ñaanal rek yéen ñi yàlla bàyyi leen fi yàlla may leen gudd fat seen liggéey bi yàlla tekki loxoom ndax lu baax rek ngeen bëgg moo tax ngeen koy def di leen ñaan na yàlla yàlla guddal seen fan te lii fi am tam nga xam ndogal yàlla bu wàcc la yàlla eh, yàlla suñu borom teggi na ko ba jàmm am waaw loolu lay ñaan yàlla réew mépp am jàmm ndax ku jaboot am jàmm nga am jàmm waaw loolu laa